yàlla li mu wax ci alxuraan la ko wax yàlla dafa woote ci digg adduna xam ngeen fuy digg adduna màkka màkka la yàlla woote muy digg adduna mu wax fa ca kanamu ñëpp ñëpp déggandoo ko déeyul kenn lan li ci alxuraan bi la wax li ci sunna sayidna muhammad ñëw ci buxaari muslim abu daawud ahmad nasaa'i loolu la wax ñu bëgg ko faa bàyyi bëgg ko moomale ibaad yi ndax la sama jawaat daal du muuru ndax man tijaan laa sama jawaat muuru dama nuru ibaad yi tijaan mooy dana ibaadu mooy la loolu mbokk ji leen ci bàyyi xel nan leen dellu ci alquran nan leen dellu ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nan leen def tawxidu talaqi nan déglu ki war a wax mu wax kooku mooy yàlla moom rek nañ déglu ki war a jottali mu jottali kooku mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam moom rek ñi ci des nañ ñu jottali waxi yàlla nañ ñu jottali waxi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu mooy li wér sama borom yàlla dafa wax ci alquran ne qul lil mu'minati يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن يلا وحنا سوت الأحزاب سوت النور قال سوت النور آية فرنرك دم من يو محمد وخل جلت نجيجين نلين kon boog yow jullit bu jigéen bi déglul yow jullit bu jigéen bi déglul yàllaay wax ak yow waxal jullit ñi jigéen ñi ni leen nañu sajj seeni bët bu ñu siggi xool góor waaw yaxdudna min absaarihinna bu ñu siggi xool góor nañu sa gi seeni bët wa yaxfadna furujahunna nañu garde seen fay bu ñu sëyeg góor gudul seen jëkkër wala yubdiina zinatahunna bu ñu feeñal seen taar ak seen toilette illa ma dahara minha lu dul la feeñal boppam wal yadribna bi xumurihinna nañu muur ala juyubihinna ci seen yaatu yaatu baatu mbubb nañ ci muur seen xumur ximaar mooy li nga teg ci sa kaw bopp yal nay musóor yal nay fulaar islamique yal nay xijaab noo ko tudde li nga teg ci bopp bi muur ko mooy ximaar alquran dene li nga def ci bopp bi na wàcc wàcc ba muur ubbi ko ubbi ko baatu mbubb alquran loolu la wax wal yadribna bi xumurihinna ala juyubihinna dégg naa ne ngeen xijaab warul aaya ji xanaa kon waratul aaya ji xanaa kon waratul wal yadribna nañu muur bi xumurihinna ci seeni li ñuy teg ci seen kaw yi bopp ala juyubihinna ci ubbiku ubbiku baatu mbubi baatu mbub mooy jëy bi alquran daa bañ fii feeñ ci jigéen daa bañ dënn bi feeñ daa bañ loo si feeñ moo tax mu ne boo boo boo muuroo na wàcc na wàcc bu wàccee tàmbalee ci kaw wàcc ba muur baatu mbumi ndax loos yi dina feeñ loos yi du feeñ ndax dana bi dina feeñ dana bi du feeñ kon boog aaya jooju leer na nañ mi ngi suutu nuur bis nekk nu jàng ko ñi nga xam ne seeni jabar duñ ko def ñi nga xam ne seeni doom duñ ko def nañ leen woo waxtaan ak ñoom sant leen ngir yàlla te bañ fee gett di wax naan ibaadi yoo koy def ibaadi yoo ko fi indi ibaadi indiwuñu fi dara ba dara booloo jël suutu ahzab sama borom yàlla wax na yaa ayyuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisaa ilmuminina yudniina alayhinna min jalabibihinna surtout ahzab aaya juróom ko juróom ñeent mu ne yow yonent bi waxal sa soxna yi waxal sa doom yu jigéen yi gis ngeen ko de yàlla ci sayidna muhammad la tàmbalee da ko ne newoo ay soxnaam ak doom yu jigéen wa nisaa ilmuminina ak jullit jigéen ñi jullit ñi jigéen ñi jullit ñi wax leen ne leen yudniina alayhinna min jalabibihinna nañu wàcce nañu jotal seen jilbaab jilbaab mooy jàllaabi ndaw si bi mu solee jàllaabi alquran daa bëgg mu jot ba àgg ci tànk yi ba muur tànk bi yudniina alayhinna min jalaabibihinna loolu mooy solo yu nu jullit bu jigéen ab jilbaab xam ngeen ni mu mel xam ngeen ne dafa yaatu xam ngeen ne jilbaab niroowul ak mbubum fetal sihaat daana wax mbubu mu mel ne mbubum fetal mbubum fetal fu fetal ji saw day saw fu fetal ji yaatu mu yaatu ba ko defee bu jigéen solee mbubum fetal day dolli fitna weer yi day day marqué njëkkaay yi marqué biir bi marqué mu nekk fitna ci kaw góor ñi loolu la alquran di bañ loolu la alquran di bañ moo tax mu ne yudniina alayhinna min jalabibihinna mu ngoog bu ko defee loolu a ñaari aaya yooyu daf nii won ni jigéen la mu war a sol day daj yaram wi kapp ba dara du ci feeñ te loolu am na beneen xadis bu koy wone Abu Daawud moo ko solo jële ci Aïcha radiyallahu anha أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يص- لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه سيدنا عائشة نانا magam ju jigéen ñuy wax Asma daa mos a ñëw ci këram ci kër yonent bi fekk yonent bi toog Aysa toog Asma dugg si Asma bi mu dugg see yére yi mu sol dafa yaraax du ko yonent bi gisee dafa dumóoyu dafa dumóoyu ndax lan day bañ a gis kawaru Asma day bañ a gis dënnub Asma day bañ a gis loosu Asma mu ngoog tey nag Sénégal yi nii génn nañ ci mbedd mi ku bëgg gis ku bañ gis keroog bu may waxtaan nañ la waa ICM nee nañu lu tax nan laa def ba gis poche jigéen yi ci ci ci mbedd mi ba di ko wax ah xanaa yéen xanaa yéen gisu leen ko gis ngeen ko yéen ku bëgg gis ku bañ gis ku bañ ku bëgg gis ku bañ gis nongo ku génn ci mbedd mi gis foo jigéen ku bëgg gis ku bañ gis loolu dañ cee war a wax su ngeen bëggee crise yu bari ci Sénégal dañ nañ ci wax su ngeen bëggee problème yu bari yi dañ nañ ci wax jigéen ñi ginnaaw da ngeen a bëgg ay jëkkër bëgg lamb gi wàññitu wax leen ci loolu góor ñi bu fekkee da ngeen a bëgg jàmm am ci kër yi wax leen ci loolu jigéen ñi nañu solu nañu xijaab seytaane yu jigéen ñi nga xam ne ay kaafiraatu lañu di woote ci mbirum iblis di woote féminisme da ngeen xam ne yéen bokku leen ci nun lakum diinukum waliya diin bu ko defee asma ba ko yonent bi gisee musal yëre yu yaraax yonent bi daa du mooyu ah kawar ga rek ak ak ak ak loosu bu daal du mooy moo bu yonent bi taxawoon ci digg Ndakaar nu muy def nu muy def xanaa mu gëm bu doxee daan waaw waaye dafa du mooyu de waaye li mu ci teg moo mat a déglu li mu ci teg mooy dafa ne asma jigéen su matee gis dara ci reegal du jaadooti ñu gis ci yaramam dara lu dul xar kanam gi ak ñaari tenn yi loolu la yonent bi wax yonent bi dafa ne jigéen su matee gis deeti reegal du jaadooti ni gis ci yaramam dara lu dul xar kanam gi ak ak ak ñaari teng yi jigéen ci ñaata atam lay gis deeti reegal lu gën a bay ah quinze ans kon boog jigéen ah ah treize ans treize ans jigéen doo xam ne ji am na treize ans jaadootul aw yaramam dara di ci feeñ lu dul xar kanam gi ak teng yi loolu la yàlla wax yow jil bu jigéen bi su fekkee yéen mu koy déglu dangaa yaakaar ne ibaadu yee ko moom ibaadu yi daan na dem àddina dem sawara kat boo tuubut boo tuubut yal na yàlla may ak tuub nan yaa nan bàyyi sunu mbooloo yu bari yi ak sunu wuute gu bari gi ak sunu woote yu bari yi te dellu ci al ilahul waaxid te dellu ci al masdarul waaxid li talaqi al awamir al masdarul waaxid ma kitaab allahi wa sunnata rasulihi sallallahu alayhi wa sallam kon boog yéen jigéen ñi yow jullit bu jigéen bi ci mbooloo moo mën a bokk loo mën a doon maa ngi lay xamal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo xasee mat a gis dara ci reegal dara waratu la feeñ ci saw yaram lu dul xar kanam gi ak tell yi kon boog muural kawar gi xijaabal muural doq gi muural muural baat bi ak ndodd mi loolu mooy ndigal yàlla subhanahu wa taala kon kon alaaya jooju ak xadis boobu daf nuy won aslëf lu bokk ci melokaani sol kay jullit bu jigéen jullit bu jigéen ay yéreem ni mu war a mel laaya jooju ak xadis boobu wax nañu sart bu njëkk ba mooy na daj yaramam lépp am na beneen xadis boo xam ne buxaari yi moo ko solo ak muslim ñi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man jarra sawbahu xuyalaa lam yanzur illahu ilayhi yawma alqiyama fa qaalat ummu salama فكيف يصنع النساء بذيولهن قال يرخينه شبرا قالت إذا تنكشف أقدامهن قال يرخينه ذراعا لا يزدن عليه yeneen bi daa mos a wax ne képp ku fab sa mbubb jotal ko ba mu jot nga di ko wat ngir bari tiitar bu àllaaxira yàlla du la xool bu yemal qiyaamata yàlla da lay mere ba du la xool loolu yonent bi wax képp koo xam ne da ngaa sol mbubb guddal ko ba muy buubu ci suuf yàlla la nga def yàlla da caa mer ba laaxiraa yàlla da lay mere ba du la xool fekk booba soxna si wax ummu salama ma nga fa ummu salama ne ko waaw yaa rasulallah ginnaaw islam day tere ku sol mbu mu gudd waaw kon jigéen ñi nga xam ne ñoom dañuy sol mbubb yu gudd nag mu ne ko jigéen sañ naa sa mbërtal mbubbam lu mat sebre chibre mooy toll nii mu ne ko yaa rasulallah bu ko defee kon day ndëggoom dina feeñ itam tankashifu aqdaamuhunna kon ndëggoom day feeñ de yonent bi ne ko kon mu mu sa mbërtal ko ziraa xatab xatab te bu mu ci dolli dara xadis boobu Buxaari moo ko solo ak muslim muy xadis bu wér buy wone ne jigéen ndëggoom war ta feeñ ndeke ndaxte ummu salama bi ko yonent bi ne jigéen ñi sañ nañoo sëmbërtal seen mbubb lu toll ne sabre ummu salama da ko ne bu yemee ci sabre seen ndëggu dina feeñ ñoom jigéen ñi liñ ciy dégge mooy kon ndëggul jigéen war ta feeñ am na mbokk mu jigéen moo doon laaj ca fan yële passé ca weer yee passé ndax jigéen daa war a sol kawas wala war a sol kawas ma ne ko ah wóoruma de wax dëgg wóoruma xaw ma ci dara xadis bi moom danañu won ni jigéen bu solee kawas ak bu solee kawas lépp ne fexe ba ay ndëggoom moom bu mu feeñ mu ngoog loolu rek laa soxla ci xadis bi bu ko defee kon xadis yooyu ak aaya yooyu dañ ciy jële ni melokaani yëre jullit bu jigéen bi ci jiitu mooy na rek yaram wa kap na xijaab loolu yi ngeen di weddi naan xijaab góorut loolu la alxuraan taxal ne jigéen ji ne na sol yére ba mu jot sëkk sartu ñaareel ba mooy li nga sol bu mu nekk toilette jigéen ji li mu sol di ko génne bu fa fay doon toilette loolu alxuraan da ko tere ndax wala yubdiina zinatahunna mu ngoog bu ko defee kon jigéen ji bu dee génn dem ca marché ba mbaa dem ca xew wa toilette su waaj ba wàññi wacc laale ko ji gën a neex moo lu mu ci jublu toilette jigéen ji ko war a def da koy def ngir jëkkëram waaw jigéen bi su wéetee ak jëkkëram tëj buntam wàcce rido bi sañ naa sol lu ko neex sañ naa mel nu ko neex moog jëkkëram rek waaye bu dee génn jëm ci parong bi mbaa ci saal bi nga xam ne mën naa am mu fekk fa góor mbaa góor fekk ko fa na xijaab ba mu ma sëkk lii mooy dëggu yàlla ko yonentam bu dee génn jëm ci penc mi na xijaab ba mu ma sëkk te bu mu fekk pisi bu rafet a rafet mu dog ko dog bu rafet a rafet sol ko toilette peinture fu nekk rastaw létt fu ne mu dugg ci ak toile génn fitna góor ñi loolu baaxul loolu la Alxuraan di wax wala yubdiina zinatahunna ñetteel bi ci charte yi yëre jullit bu jigéen mooy bu mu bu mu na na na na tal bu mu doon lu yaraax bu mu doon lu yaraax ab voile voile la tudda loo xam ne boo ko solee muy grand bubu sa soutien day feeñ sa biir di feeñ loolu dafa xaraam bépp xeetu tifi bu yaraax ab usine sañu koo defar ab tailleur sañu koo ñaw tailleur yi ñaw tam nañu bàyyi xel ci ne bu jigéen ci ñëwee ni la ñawal ma lii nga xool li mu lay ñawloo muy loo xam ne alquran da koo tere na nga xam ne boo ci amee dërëm-dërëm ba léwut na nga xam ne boo ko dogee mu sol ko mu am bàkkaar yooyu mu ko dog nga am ci bàkkaar waaw loolay gën tailleur yi nañ ci bàyyi xel usine yi nga xam ne dinañ defar ay tifi usine bu mu defar tifi boo xam ne bu ko jigéen solee mu xaraam ndax yaraax ga mu yaraax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sa yakunu fi axiri ummati nisaun kaasiyatun aariyat ala ruusihinna ka asnama ka asnimati lbux laa yadxulna aljannata wala yajidna riixaha wa inna riixaha la tuujadu min masirati kada wa kada yonent bi nee na buñ demee ba mu jug jamono am na ay jigéen yuy feeñ ci mu jug jamono jigéen ñooñu kara bañu soloo lañ gën a rafle dañoo solu te rafle seen bopp yaa gën a jóg mu jógóoral ba mel ni jege ni gëlee bi bux ah ñaari critère la yonent bi wax ci jigéen ñooñu seen i mandarga nee na dañuy solu te rafle benn ñaareel ba seen bopp ya dañuy jóg waaw bopp bi ne jóg lu ci ne meesa ci nekk meesa ci nekk yonent bi nee na laana allahu alwasilata walmustawsila yal na yàlla rëbb jigéen di yokk kawaram ak ki ko yokkal ndekete kon waxuma ndaw si nga xam ne moo dem jënd meesam di yokklu kawaram waaye ki mu woo moo xam góor la moo xam jigéen la coiffure la wala lu mu mën a doon ñëw di ko yokkal képp yéen baa koy rëbb laana allahu alwasilata walmustawsila yal na yàlla rëbb ki yokk ak ki yokklu kon boog jigéen ñi nañu bàyyi xel ci loolu islamologue yu islamologue yi nga xam ne ñoom ñoo leen di daganal mbooleem yàlla xaraamal naan leen mees moom garaawut mees xaraamut waxuñu dëgg de xam ngeen ne boo xaraamul woon yonent bi di wax am rëbb de laana allahu yàlla rëbb na yàlla na yàlla rëbb loolu yonent bi nag wax ci ci lu woyof xam ngeen ne mees woyoful xam ngeen ne yokk kawar woyoful jigéen julit bu jigéen bi kon ne xam ne du mën a nekk kuy mees du mën a nekk kuy penturu du mën a nekk kuy xeesal du mën a nekk koo xam ne kii day nekk kaasiyaatun aariyaat kaasiyaatun aariyaat mooy ku solo ba noppi rafle kii solo ba noppi rafle moom mooy kan benn li mu sol daa yaraax ba boo xoolee seen la ca biir wala mu xat bay bay formé ay ween ak ay njëkkikaay loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nee na am na ñaari am na aw jigéen yoo xam ne daañu feeñ ci mujjug jamono seen i melokaan dañuy solo ba noppi rafle seen bopp ya ma nga ne jëm mel ni jigéen yi gëleen yi buxt lu mu ci teg nee na jigéen ñooñee du ñu dugg àjjana ah jigéen ñi du ñu dugg àjjana jan jigéen a bëgg a dem safara jëpp jigéen joo ci xam ne sa bopp bi ay mees nga ci wala yokk sa bañee dem safara dindi tekkil tekkil firil léegi yonent bi moo wax kat laa yadxulna aljannata wala yajidna riixaha du ñu dem àjjana xetu àjjana du leen xel mu ngo jigéen joo ci xam ne li nga sol daa yaraa mbaa li nga sol dana ñàpp-ñàppaala ci yaram wi summil te sol lu jot lu yaatu bala ngaa bokk ci kaasiyaat aariyaat kon sàpp ñetteel ci sàpp yi mbub mbub ñu jul bu jigéen mooy na fiin bu mu doon lu yaraax ñeenteel ba mooy na yaa bu mu doon lu xat juróomeel ba mooy bu mu ko def laj ko lañ mbaa mu tuur ko jigéen ñi am nañu léegi ay cuuraayu jidda am na cuuraayu jidda de cuuraayu jidda bala ko jigéen geelaal day waaj a génn loolu ndax xam ngeen ne dafa xaraam ndax jigéen ñi xam nañ ne di waaj a génn laay parfum alquran da koy tere sunna sayidina muhammad da koy tere yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na ida xarajat ixdaakunna ila almasjidi fala yaqrubanna tiba bu kenn ci yéen jigéen ñi dee génn di dem jàkka ja bu mu laal ko bu mu ko jege sax jàkka ja jàkka ja lañ wax li muy doon doon barabu jaamukaayu yàlla yeneen ci bu nee na jigéen ji dem jàkka ja bu mu laal parfum bu mu laal gët bu mu suuru bu mu laal parfum ci beneen xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ayuma imraatin istaatarat fa marrat ala qawmin li yajidu min riixiha fa hiya zaniya yonent bi nee na jëpp jigéen joo xam ne dafa laal gët gu neex wëlbati ko romb aw góor ndax bëgg mu xeeñ leen njaaloo katangoog njaaloo na laa hawla wala quwwata illa billah xanaa kon yow jigéen bi te am na jigéen ñoo xam ne tàmm nañu fu ñuy génn rek laal gët tàmm nañ ko ba mootuñ koo bàyyi bu ñu génnee te laal ñu parfum day mel ne daa am leen manqué maa ngi leen di xamal ne ak njullit du waxe kese ak njullit du turu kese ak njullit ay jëf la ati ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bëgg jigéen ji bu dee génn bu mu laal parfum mbokk jullit yi loolu aslëf la ci charte yi nga xam ne mooy charte yi war a daje ci yére pour jullit bu jigéen sañ koo sol charte juróom-benneel ba mooy yére ba bu mu nuru mbubum góor xam ngeen ne am na ci jigéen ñi ñuy sol yére yoo xam ne yére góor la man gis naa sax aw jigéen ñu sol ay jean pantalon jean wala amul pantalon jean teg ci kaw xoo waaw mu ngoog loolu yonent bi da koy tere yonent bi nee na laana wala wala boog abu hurayrata nee na radiallahu anhu qaala laana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama arrajula yalbasu libsata almara walmarata talbasu libsata rajul mu ngoog yonent bi rëbb na yonent bi rëbb na góor guy sol yërey jigéen ak jigéen ji sol yërey góor kon boog jigéen ji sol yërey góor na xam ne li mu sol dafa xaraam ab simis ab t-shirt pantalon loolu na ko jigéen ñi bàyyee góor ñi ndax ñu mën leen a xàmme pantalon jean waaw jigéen bu solee jàllaa bi sañ naa sol tubéy waaye na sol jàllaa bi na sol jàllaa bi jàllaa bi jot tubéy ji muur waaye sol simis ak pantalon mel ni góor yàlla tere nga fa si sa kawar bi ba mu gàtt mel ni alkaati bu jigéen juróom-ñaareel bi mooy jullit bu jigéen bi li muy sol bu mu nuru yëre yéefar waaw nuru nuru yéefar yi ci ay yére ci waxin ci doxin alquran ak sunna dañ ñu koy tere yonent bi mos naa gis kenn ci saxaaba yi mu sol mbubb mu ne ko laa talbas haada fa inna haada min libaasil kuffaar bul sol lii lii mi ngi bokk ci yére yéefar yi mu ngoog moo tax ba jigéen ñi nga xam ne ñoom buggu ñoo sol jallaa bi bëgguñoo sol grand bubu dañoo bëgg a sol jupe ak o jupe ak o jupe yi a ngay def trois quarts trois quarts bu ko defee yeel bi di feeñ trois quarts fu muy yem ah ci digg yeel bi waaw kon yut ñu ne alayhinna min jalaabiibihinna la li alquran wax nañu wàcce mbumi ba mu agsi ci ci ci ci ci dë ndëggum ba ba jullit bu jigéen ba ummu salama soxna si yonent bi di wax yonent bi naa ko jigéen ji faaw mu sa mbërsal mbubbam lu ëpp sabre ndax bu dul loolu ndëggul day feeñ yonent bi na ko kon bokk na ko sa mbërsal ba mat xasab jigéen ñoom ne nañuy dañuy sol si bu yam di trois quarts bismillah jam loolu gën di cànkute ñu faf nag jàll ñëw ba ci mini faf mini mini jib mu ngoog loolu mbokk jur yi ab jil bu jigéen da ko war a bañ ñaari yoon da ko war a bañ ndax li mu doon yëre yéefar bu jigéen war koo bañ ndax li mu doon loo xam ne day feeñal ay awraam te awray jullit bu góor mbaa bu jigéen war ta feeñ mu ngoog yonent bi wax na loolu waaja na ko bul sol lii lii yëre yéefar la ba tey yonent bi ne ne man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum ku nuru nuru lu aw gaay sa gaay yooyu nga bokk moo tax ba war na noo bàyyi xel bu baax a baax suñuy yére ñun góor ñi ak jigéen ñi moom doon ay yére jullit te bay doon yére yéefa juróom ñetteel ba ci sart yére jullit bu jigéen mooy bu mu nekk mbubum siiw ka mbubum siiw ka mooy yére boo xam ne da nga koo sol ngir tiitaru ak bëgg gis leen ma def sa xaas bu dul jeex yàq ci sa alal yàq sa alal li jëkkër loolu dafa xaram yonent bi nee na man labisa sawba shuhratin fi dunya albasahu llahu sawba mazallatin yawma alqiyama summa alhaba fihi nnaar ku sol ci àdduna yére siiw kaw ci àdduna bu alaxira yàlla dina la solal yére toraxte ba nag fi jafal ko ak safara nga lakk ci biiram yonent yàlla musal kon mbokk mbokk jiit yi loolu aslëf la ci doxalinu jullit bu jigéen ci wàllu yére ak ci wàllu col ko ñu war see bàyyi xel bu baax a baax jigéen bi ci wàllu aw xalaatinam dafa war a bàyyi xel ni borom bi tabaraka wa taala mi sàkk góor sàkk jigéen dafa am lu mu santaane ci problème yooyu ñuy wax émancipation de la femme ak libération de la femme te danaa war a xam ne képp ku nu andil ay xalaat te xalaat yooyee tànqe woo ko ci alquran ak sunna leer lu woo ci alquran ak sunna door a xalaat te xalaat yooyee ak tànku te dong lay doon dama leen ni xelum doomu aadama su bëggee gis te leeruk wax yu du ko dimbali du mën a gis misaal mi mooy bëtut nit gaa ñi koo xam ne ay bëtam neex na lool docteur bi seet na ko ophtalmologue bi seet na ko mu am dix sur dix xanaa ko ko bëtee neex na de jant bi sof weer wi génnul làmp tàkkul mu dugg ci néeg bi ñu tëj bunt bi dana gisa lu ko tee gis bët yi daa neexul lu ko tee gis loolu mooy misaalum xelum doomu aadama bu leerluwul ci leerug wax yu leerug wax yu mooy jant bi jant bi wala leerug làmp bi fàww mu takk bët bi door a mën a gis leerug xelum doomu aadama fàww mu leerlu ci leerug wax yu door a mën a gis ay xalaat yu jub loolu moo tax laïcité di di di lëndëm moo tax lépp loo xam ne lii ab tubaab moo ko wax te tubaab moom daaw gëmul yàlla gëmul sayidna muhammad gëmul alquran la muy wax ak cànkute lay doon ak lëndëm lay doon xam leen ni xataa loi yi nga xam ne moo nekk ci yoonu tubaab yi am ci ay benn benn yu ñu xaw a mën a dégg léeg-léeg dañ koo sàccoon démb ca ci Espagne jamono yi islam islam nekk ci doncaltiréem nekk ci diggu dooleem tubaab yi dañ daan jàngi Espagne bari na ci seen loi yi loo xam ne foofa lañ ko sàcce woon waaye dañ faa bàyyi ruuga ruuga mooy gëm yàlla ruuga mooy gëm yàlla te tënku ci alxuraan ak sunna bañ ko fa bàyyee moo tax lañ ca sàccee kës néew munu leen a jëriñ njëriñ lu mel ni li ñu war a jëriñ waaye méppum xel muy jéem a xam ak dëgg méppum xel muy jéem a wane yoon wu jub te du leerlu ci leerug wax yu xel moomee day mel ni bët bu bëgg a xool te du am leerug làmp du am leerug jant wala weer bët ba du mën a gis ak lu mu neex neex kon boog bépp idéologie bépp système de pensée bu jullit ñu bëgg a jaar nañ ci sàmmanteeg dëppale ko ak alxuraan ak sunna bu dul loolu jàmm du mën a am jullit bu góor ak bu jigéen ñoom coono dalu leen ndax gëm nañ loolu xam nañ ko yéefar bi it jaaxalul kenn weddi na yàlla mu ngi ci yoonu yéefar waaye nag ki nu jaaxal mooy ki nga xam ne nee na jullit la nee na gëm na yàllaay te nee na koo bëgg a boole doon ab ministre nee na gëm na yàlla te ministre la nee na gëm na yàlla ku laa yig la nee na gëm na yàlla te li ko yàlla sant du ko du ci jaar li ko yàlla tere da ciy jaar ana goog gëm yàlla waa ja gëmul yàlla su weddee ndigalam ma xam ne daa réexu ci feebarum ngëlam waaye ka gëm ne yàlla buur bu am la te moonu sàkk gëm ne buur bu xam la te gëm ne moo yónni ndawam lu jub la muhammadin te gëm ne ndaw lu mat la kii su jógee teg gi la buur yàlla tëral sànni teg fa yoon ya ñuy weddi tëral kon kay danaa laajte ba xam waa jëkko gëm ba noppi ànd ak gaa ya weddi luy ndiram mbokk jullit yi jil bu jigéen ci aw xalaatinam day doon ku topp yàlla day doon ku appliqué hadis ba yonent bi wax hadis ba yonent bi wax mooy lan sallallahu alayhi wa sallam laa yuminu ahadukum xatta yakuna hawaahu tabaan li ma jitu bi yonent bi nee na kenn ci yéen ak njullitam ak ngëmam du mën a wér feet bëgg-bëggam topp li ma andi man Muhammad kon loog yow jil bu jigéen bi sa bëgg-bëgg day topp kitaab ak sunna nga jaar ci mbaasan njullit du mën a wér loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax wéetal yàlla ci jële ci moom ay qiyam tawxidu istimdaadul qiyam min allah subhanahu wa taala mi ngi bokk ci maani la ilaha illa allah mooy la misaana lil qiyam illa misaanu allah amul fenn fu ñuy xamee lu baax ak lu bon fu dul fi yàlla wax amul fenn fu ñuy xamee dëgg ak caaxaan fu dul fi yàlla wax loolu mooy tawxidu juróom-ñaareel ci maani la ilaha illa allah muhammad rasulullah ci boobu angle ci la jullit bu jigéen ji xoole ci lay xalaate bu nekkee day xalaat góor ak jigéen ba xam ku war a yilif ak ku war a yilif kër gi ak ku war a gën a ku war a jiitu day seet li yàlla wax mu gëm ko nangu ko jaar ca jaarul ca su fekkee dañuy laaj nag alquran moom lan la wax ci problème mu góor ak jigéen ana kan moo ci gën ana kan moo war a féete kaw ndax ñoo yem alquran day li mu wax leer na laysa zakaru kal unsa alquran nee na góor du jigéen góor du jigéen tekkiwul ne góor a gën jigéen déedéet alquran dafa gis ne góor mi ndaafoon la jigéen mi ndaafoon la kenn ku ci nekk jaamu bi yàlla nga kenn ku ci ne mën ngaa gën sa moroom sa moroom mën na laa gën la ngay gën a nit du doon góor mbaa doon jigéen waaye ay jëf la ak gëm gu ànd ak jëf yu baax ci la nit di gën a nit moo xam góor la moo xam jigéen moo tax suñu borom yàlla wax ci alquran ni man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa muminun fala nuxiyannahu xayaatan tayiba wala najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yacmaluun yàlla nee na suutu naxl aaya ji dañeen fukk juróom-ñaar képp ku jëf ay jëf yu baax moo xam ki jëf góor la moo xam jigéen ki jëf-jëf yu baax daal tey ku gëm man yàlla dinaa ko dundal dund gu neex ci àdduna bu àllaaxira ñu fay ko fay gu gën a neex ci suutu nisaa aaya téeméer ak ñaar fukk ñeent borom bi wax ne man yacmal min alsalihaati min dakarin aw unsa wa huwa muumin fa ulaika yadxuluuna aljanna wala yuzlamuuna naqira yàlla ne képp ku def ay jëf yu baax moo xam kooku góor la moo xam jigéen waaye dala ci def lu baax tey ku gëm kookee daana dugg àjjana te kenn du ko tooñ kenn du wàññi dara ci ay jëfam kon boog mbokk jullit ñi góor ak jigéen alquran daf ñoo xamal nit du ñu benn wuute nañu waaye nag ak gënaate seen diggante mu ngoog mi ngi am ci seen i jëf waaye du mën sukkandiku ci kaw kii góor la mbaa kii jigéen la moo tax ba atte yu bare bari góor ñi ak jigéen ñi ñoo ko bokkale ñoo ca yem bu ñëwee ci sàkku xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima yonent bi nee na sàkku xam-xam farata la ci jullit bu góor bu nekk ak jullit bu jigéen bu nekk moo tax ba yonent bi daf daan waar jigéen ñi daf leen daan jàngal xeeti xam-xam yi leen di jëriñ ci seen njëriñu adduna ak njëriñu diine sitna Aïcha radiallahu anha ku bari xam-xam la woon xam ngeen ko dam daan jàngale moo tax ba am na ci borom xam-xam yi saxaaba yi ku wax ni baayam nee na ko maa raaytu ahadan aalama bi fiqhin wala bi tibbin wala bi shirin min Aïcha mosumaa gis kenn ku ëpp xam-xam sitna Aïcha ci fiq wala ci médecine wala ci way maanaam ko sitna Aïcha jigéen la woon waaye dafa jàngoon ba xam fiq lool jàng ba xam médecine mën a faj lool jàng ba xam littérature arabe ci jamonoom lool loolu li muy tekk mooy jigéen ñi dañoo war a jàng te jigéen ñi mën nañu nekk ay jàngalekat mu ngoog ci wàllu liggéey li nga xam ne lii mooy li gën a indi coow jigéen islaam néew ko génnal kër gi dem liggéey néew ko bul liggéey néew ko bul liggéey waaye dafa am ay xeetu liggéey yoo xam ne jigéen mën na koo liggéey ak ay xeetu liggéey yoo xam ne saa bu ko jigéen ba koy def ma ngay bàyyi waru garam ci këram ma ngay dugg ci loo xam ne nii du domenam jigéen mën naa liggéey